tey la mel ma ne ko bu ne booloo yàlla yàlla may ndam rek man man may sama solo gaa ma waaye ko bokk na mu dox waaye ko bokk na mu dox waaye ko bokk na mu dox juróoma sax man noonu boo gisee ñoo a xat a xat nga xam ne comme yéen ay quelques jours moo des sa combat su mën nañ sax ginnaaw si wala ginnaawaat si ba yàlla ñu fekk di taw yaakaar naa ne kenn nga bëri suma jublu 2022 te ba ngay mujj ba ne résultat ba nga nekkul bi ñu wala boog bi neex sa xol mais ki nga seqal moom mu ci dynamique parce que li mu mujj a daan mbëri la muy daam seen moom moo ca tey nga jëm ci moom actuellement nii mental bi parce que amoon nga ko mag maamale bi mu yàqu yàlla dogal bëri woo pour nga toog ñaari at bëri ko tey nga jëm si combat double moteur bi ñu daan gis ci wàllu entraînement ci doole ak ci mental bu baax ndax mooy ñëw dimanche wala boog mu ca bi la ne maa la dàq bëri nooy wax ak waaw loolu ñu xam nga profité occasion bi di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax suñu gëj a bëri ak suñu ñàkk a bëri suñu coobare waaw coobare suñu borom la rek blessure moo tax bëriwul mais ñun bu woon blessure amaana tey nit ñi kon leneen la ñuy wax mais blessure moo tax bëriwul xam nga mais blessure aussi tamit yàlla def na aussi tamit affaire bi xaw a yàgg moo waral temps xaw a diire mais alhamdulilah ba nga xamante ni déplacé yaakaar naa ne yoo wakaam ngor yoo yëpp dañuy jóg ànd ak keroog mu ne yow la dégg nga ni mbër musulaa daan ci bër te moom mooy seule personne bi nga xamante ne da laa fas yéene daan ci sa loolu lan nga ci waaw loolu li ma ci wax bariwul parce que dimanche yàggatul saame yàggal leen xeex la li ñu waroon wax yëpp wax nañ rek moo des lu ñuy wax autorité yi nekk Dakar Plateau la ñuy dagaan rek ñu ñëw ñu si biir yaa ngi koy répondre ñun loolu kese la ñuy ñaan daa ñëw jàppale ñu doolal si yi suñu biir yi parce que mobilisation bi ñu si soxla bare nga gars yi jàppale ñu si biir yi te soxla nañ ko trop trop trop trop trop dara lu may wax si moom li may wax si moom bariwul ndax biir na ma ni man maa ko mën foofu loolu laa moo waral mu demee nii mais sinon du woon sax maanaam kon du adversaire boo xamante ne tey jii war naa toog li ma seq moom mooy ak bi ma jëlee ko fi te dimanche yaa ngi fi incha allah rabbi ku xam ne ni moo jël dafa nekk mbër moo xamante ne soo koy dóor bay ñëw te bu la jàppee làmb ji jeex te moom gëm na ni ci wàllu bëre li mu yor ci wecc ku bëre xaaj xaajaat bi yow yoroo ko ba pare jaroo ko bu waat ñu dalay daan toog ci sa biir. day sëb day ñuul baax moom moo mën wax di wax rek. Hmm. moom daa mën a wax di wax. mais li mu bëre dafa bari. Hmm. li mu bëre dafa bari trop trop trop trop. wax naa la ko damay wax nee naa la instant bii nii li ñu waroon wax yëpp wax nañ ko. Hmm. instant bii nii jëf wax taxul biir fees quoi. ñun ku ñu xam ku ne xam ne ay jàmbaar lañ. parce que ku def douze combats am dix victoire deux par décision arbitrale loolu boo ko def da xam ne kii jàmbaar la suñu fekk bu ginnaaw chaque jour bu at bi sifflé gëm mooy at bu sifflé dañuy dox sa kaw du war a daan la loolu lañ mos a gëm loolu la ñu sa combat kon instant bii ay wax yu bëri waaw ñaan jàmm lañu ñu ñaan rek yàlla suturaal ñu dafa ñu jàmm ba lépp li nga xam ne tey jii nañ ko yàlla defal ñu ko ci géew bi lu fay neex ñu ñoo koy def voilà loolu laa bëgg bi lu fay neex ñu ñoo koy def voilà nee na bëri nga ba mi-temps bëri nga ba arbitre tàqali ko ak sa adversaire ngeen dem naan ko moom moom loolu yëpp su ci làmb te seen combat yéen ñaar moom li mu gëm mooy ngi yàlla war a suuri nga taxaw dëggal sa bopp moom nee na lépp moo koy def waaye daaw dëggal sa bopp moom loolu wax mu yàqu la quoi loolu wax mu yàqu la jëmbal mënut a wax bëgg am na yenn yoo xamante ne ay détails la rek. Hmm. ñun kenn duñu wax ay dëggal sa bopp. Hmm. waaw dëggal sa bopp moom lañ koy wax. Ah, nga dëggal boppam te bañ affaire yooyu muy la arbitre sifle ngay daw dem jay saako. mu ngi nii di la xool wax waaw eh, da nga dëggal sa bopp arbitre sifle ngay daw di dem jay saako yooyu amu fi. Hmm. boo dawee dem ci saako yi tam day gën a métti sa bopp bi ci biir saako yi. Kaji moo des sa combat ak Jollo waaye ak Jollo woo mën nañu Kaji moo des combat te léegi da ngay daan dem nga daan dugg ci saako yi ba tey ngi bu rek adversaire bu mel ni Modou Dia adversaire bu coriace bu mel ni Modou Dia xam-xamu bëreem kenn dinaa taameelu mbër bi nga xam ne day bëri day xeex nit ku mel noonu ngay jëflante ak moom yan sacrifice la laaj waaye xanaa déggoo capitaine Dakar bi yow. bu ñaaw bi. déggoo capitaine Dakar bi. bu jóg wala bu déggoo rek xanaa déggoo rek. Ah, capitaine Dakar bi moo ñëw. bu soxla bi. waaw ñun fi ñu toll ci làmb li may wax chaque jour rek làmb ji moo ñu ñor. du adversaire bi du adversaire bi mais làmb ji bés bi moo ñu ñor parce que bés bi moo am solo suñu carrière parce que boo xoolee toog a trois ans bëriwul kon xam bu ñu defaatee retour retour dafa war a nekk loo xamante ni du adversaire bi mais bés bi bés la boo xamante ni bés bu waa Ndakaaru soxla la bés bu Dakar Plateau soxla la particulièrement nag waa Rébeuss waa Niass Jokalante bés bu ko soxla trop trop trop trop. waaw waaw waaw comme ni ko gars yi waxee quoi. waaw mais man mais man daa benn si baal ma benn seetlu ma def quoi. waaw par rapport ak écrit Rebeuss. boo xam ne ay année ci ginnaaw. maanaam bari woon na ay mbir macha allah bëri na espoir. mais boo seet boo defee seetlu bi. waaw maanaam boo defee seetlu bi. li ñu gis mooy ah dugul ma de fan la jëlee ko tax parce que ñun gisuñu fi ku benn saal ba wala lañ fi gis ci mbër mu ñu xam léegi maanaam wàllum contact parce que adversaire bi bëreel dafa nekk mbër boo xam ne boo ko xoolee da ngay xam ne il est prêt moo jëf li may wax chaque jour rek xam nga tey am na loo xam ne du lu ñuy wone mais tey jii nii ñu Dakar lañ dëgg te Dakar ku ne xam ne ni instant bi nii lamb dafa sax Dakar boo bëggee dëgg-dëgg ay champion ñu ngi te champion yi nekk Dakar yëpp suñu diggante dafa di tax ñu naan dañ seet yàlla dogal na ba maay capitaine bi mu jëm la way ci contact bu métti di ko wuyu ko yàlla am na ñu ne moo la dàq bëri nga ne da nga ko fekk moom nee na yow sax doo ko fa jaar yow boo génnee ci moom yow sax doo ko fa jaar Kera mu gaaw rek. Duul ñu ngi lay nuyu. di nuyu waa plateau di nuyu waa Rebeuss. Duul ma tamit man question ma lay posé. sa combat passé waa Rebeuss waa plateau kenn kontaanul ci yow. te xale bi ngay bëreel moo jax ku nekk xam na ko ci xeex ku xam na ko ci bëre ku nekk xam na lu mu mel ci xeex ak bëre adversaire bu mu dajal da lay andil safara andil la safaan. song la andi lay problème ñu dul du xaaj parce que combat bi passé gis nañ ko demee ndax état de forme bi dugul moteur yoon ndax dugul moteur préparé a yëngal moo jàpp jëlee liggéey na ko. dégloo dégloo man pare wu pour moteur. waaw waaw adversaire bi. merci oh, man bés bi moo ma ñor bés bi laay jaayante man ma ko bi man adversaire bi man bii na ma ni maa ko mën aller retour. waaw adversaire bi bii na mën aller retour ah, mais bés bi moo ma jaaxal man ba léegi maa koy wax man li may ñaan rek mooy autorité yi nga xam ne ñoo nekk Dakar war a suñu dimbali jëndoon ñu ay billets parce que booy dañuy am ay problème mu billets dañuy am ay problème mu car dañu gaa yi jàppale loolu kese laay ñaan ñaanu ma leneen ah, man bés yi moo ma ñor du adversaire bi man adversaire yi nii nii du ñoom laa war a bëreel hmm. ah, la caaxaan dëgg la waaye mujjee laa war a bëreel loolu nag moo tax xam nga du ma bëgg di sori ci wala ma wax ci moom hmm. li ma seqoon moom ak li ma war a wax samay supporter lenn la mooy arbitre le dimanche ma jàpp ko daan ko te si kattanu yàlla ak baaxam loolu lay ziar bu baax mooy jox sa wàccuwaay mbër mu am stratégie la ci lamb ndax mën nañu xaar double confiance nga doon dégager ci lamb ak gëm-gëm bi ak sañ-sañ bi ñu gis ko sa diggante ki nga xamante ne mooy Modou Dia beneen bi mooy ndax yaa ngi sóoraale songu Modou Dia ndax nan nga ko nar a recevoir lan la ko incha allah. songe ñu demoon loolu. waaw déggoo li ma la li ma war a def li ma war a def li ma war a jëf la bis mm. xaar. lu may nekk fii di ko wax adversaire bi muy Modou Diagne li ma seqal moom lenn la mooy moom biir na ma ñu laa la wax catu weeyam sax bu ma ko jàppee daf koy daan jërëjëf amateur gis nañ ne dafa yokk poids macha allah taxoon yàlla suñu combat mais tey ki ngay bëri nekk poids ne mais tey soo ko bëggee jàpp ak poids bi nga am est-ce que doo am problème sa diggante sa adversaire ayca merci ça. allez-y. waaw poids gars yi ñoo ngi say poids. jot li ma lool. gars yi ñoo ngi say poids. te man <coughs> wax dëgg yàlla wàññi naa poids bu baax a baax a baax fii wàññi naa poids bu baax a baax a baax waaw te poids aussi tamit. c' est normal ñun fi ñu toll ay xale lañ ñu wax seen rek ñu ne xale lañ ñu dañuy yokku rek mais duñu wàññi ñun yokku lañ ñun yokku lañ war a ko mais duñu loo xamante ne tey ko xam ci làmb moom cër boo xamante ne da ngaa am ci làmb dañ ko war a jël kon pare wuñu pour adversaire yi nii dañuy pare pour ñu si kaw parce que tey jii nii bu fekkoon ne tey jii nii bu dul woon plaisir bi mu am ak ñu bi ma xaw a am ne toog temps yi nii bëriwul kon ñu si kaw laay bëri kon adversaire ñu si kaw laay bëri blessure bi ñoom ak temps bi ñu toog bëriwuñu moo waral aussi tey ñu ñuy bëri ak adversaire bi nii mais bés bi moo ñu ñor du adversaire bi voilà. Zal waxal Zal waxal. promoteur bi moo ko yónni fi mu mu ñëw man posé question mu nekk. képp ku gën a mobiliser yàlla na ko yàlla may ndax looy wax ci loolu. allahumma amiin laa wax. waaw loolu loolu loolu ak mbooloo mi ñëw keroog ci open presse loolu bi la ko naan non ko ya ba tey ko dem mbooloo do ko fekk baax ngay ko dem mbooloo ko dem supporté bu ko wax fii la fekk baax ñun yàlla moo ñu dimbale benn affaire li may wax sa jour rek solidarité bi am na ñu ko sax mu fenn ak waaw boo xoolee tey ñun Dakar li muy yaatu yaatu solidarité bi am na ko sax mu fenn leneen la moo tax tey jii ñun duñu waaj dara ñun ni ngay gis nii duñu waaj dara open presse boo xoolee si deux jours la ñu jàpp waaj ñu dara ñun dañuy jékki-jékki benn coup de fil mooy daw rek ñu ne lii la ñu war a def rek ñëpp ñëw taxaw président ñun chaque jour gars yi ñu président moo tax ñun amuñu problème yooyu noonu comprendre bu dee côté mobilisation côté yooyu dal waaw ñu ngi ciy woo Dakar yëpp di ko dalee kat mu ne ba présence booy kay waaw suñu baabu booy kay rek moom dañ koy sant baabu booy waaw moom suñu baabu booy kay li tax ma koy sant moom dafa ñëw fii nii représenté bi mille pour cent mille naa waaw di coordonnateur bi mille pour cent maintenant moom mooy seen représentant bi nii ku nga xam ne combat bi combat waa Dakar la waa mille pour cent maintenant bi yëpp tey jii gis naa seen teewaay parce que tey jii bu Boy Kaïré ñëwee rek mu coordonnateur groupe rek kon ñëwoon na ñëpp tey ku ci mel ni Baye Guèye teewal na képp ku nekk Bawol moom Mor Kaka teewal na képp ku nekk Bawol ak moom teewal na képp ku nekk Bawol ak kon loolu ak kon wooteel bi dem ci sant bu baax wooteel bi dem waaw li ci woo mooy dañuy woo suñu papa Diop si suñu papa Diop si ñu koy woo bu baax a baax a baax a baax di woo aussi tamit suñu monsieur le maire Alioune Ndoye ñu koy woo si combat bi pour mu jàpp si jëloon ñu ay biir pour xale yi mën a mobiliser wu dem ku ci mel ni Babou Touré ba gis naa ku ci mel ni Seydou Camara ñooñu dañu di woo si combat bi ku ci mel ni Bokar Diela borom Fass Gueye ku ci mel ni Ilimane Gueye daal di Serigne Saliou ku ci mel ni a Mbaye Mbaye ku ci mel ni Mawta Gueye daal di Serigne Saliou moom yaa ñu nga xam ne dama leen di dama leen di woo ci combat bi ay xaalis taxane ay gamsu booy ay mbay booy ñaa ay jaadu mboombooy comprendre ay mursu Serigne ay Diop dollar ay Serigne Gueye ñoom ñëpp mën ngaa ñun idaal mën ngaa bi dafa nekk dafa bëri ñoom ñëpp leen di woo jaadu robos mention spéciale waaw jaadu robos mention spéciale moom moom moom mooy loolu moom xam na man xam naa ma koy a xam nga waa Thiel aussi tamit gars yi maa ngi leen di baax a baax tey ku ci mel ni tey jii Tafa Saliou borom Six Avenue ak Mahmoud gars yi nekk Six Avenue bi yëpp ñu ngi leen di déglu parce que ñu ngi leen di baax a baax a baax a baax xam nga li ma la wax li ma la wax tey jii nii ku ci mel ni Lamine Sène mention spéciale amul fayam jeune la mais day sonn moom dañ koy sant bu baax a baax di ko gërëm moom taxawaayam ku ci mel ne Assane ak Ousseynou Kabin ñaari seexu yàlla yi sama pro yooyu ñoom dama leen di ñaanal yàlla yàlla dafa leen di taw bi dafa leen di baax parce que ñoom dañ ciy jàpp ci saa yi di jàpp si baat yi ñaari seex yooyu ñoom loolu seen moyen di ci def maam Cheikh Anta Mbacke borom sañ-sañ borom ginnaaw raay maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm maam Cheikh Mbacke imaam sama sëriñ sama wasila maa ngi koy sant bu baax a baax a baax ak njabootu Cheikh Modou Kara Mbacke yëpp Abdoulahat borom Somone Abdoulaye borom Somone maa ngi koy sant bu baax moom Baye Niass Ama ak Alpha Somone monsieur le maire Moussa Somone gars yi dañoo Somone yëpp maa ngi sant ñu mel ni aussi tamit waa Médina maire Mamadou Abou Fass Colobane surtout waa Colobane ñu am waa dëkk gis naa ni waajal combat bi maa ngi sant bu baax a baax bu baax sant bu baax Saliou Diop suñu président ak ñi am yaa pegu ñibi nag amu seen fay waaw am yaa pegu ñibi góor yaa seen kenn góor yaa seen góor yaa am seen am seen fay waaw ñaay coteer maa ngi sant bu baax ñaay coteer jamono monsieur le maire bu Somone on koy woo ci combat bi baax baax baax on koy woo ci combat bi baax baax baax bëri sëy xam nga ak bëri sëy benn ñu woo ci combat bi baax baax baax comprendre pàkk kajoor kajoor yi pàkk bool bool yi bàyyi ma kenn tey boo xoolee pàkk bool bool yi ànd sant yàlla ànd sant yàlla su ma ñëwee may jum mais ñëpp maa ngi liggéey ay fa nekk yëpp ñëpp ay ko ci loxo mbay jàng ak xaalis Doro Gueye ak Téeméer ak Galas Gueye teg naa seen loxo ci nuyu waa nga sant yàlla yëpp ay rapide yaa yëpp waa Kajoor aussi sama sama mbokk Kajoor Kajoor waa Lam Dial waa Pekes waa waa Ndeer Naar waa Ndeer Olof waa Kuure Joor maa ngi woo ñëpp si waa ñu jëm jàpp si incha allah Merci.